fu jàmm amul sécurité amu fa réew du dox fu tranquillité amul réew du dox ñun ñu remarquer ni depuis ay années ngi nii depuis 2019 particulièrement dañu remarquer ni dafa am li nga xamni day ram jëm ci ñun am ñu nekk ci biti diñu xiirtal ci désordre diñu xiirtal ci xalé yu wacc ci mbedd mi mag ñi wàcc di diñu xiirtal ci sunu di diñu wutal nakar yoo xamni ne dañu koy jiñ naan diwmee la dal leen ci kawam lolu ay nit def ko pour yàq suñu réew tasaare suñu réew loolu ñuy dem di dem ba mu jur ay comportement yi xam yéen ñëpp gis ngeen ko fii réew mi dañ ko bàyyi di ko bàyyi di ko bàyyi di ko bàyyi ba kenn xamatul lu mu doon xale xamatul mag góor xamatul jigéen kenn xamatul kilifa dara ay saaga mooy outil ay fen mooy outil léegi pouvoir bi pour nga nekk politicien il faut nga mën a wax lu bon il faut nga mën a saaga il faut nga am fit di def lu kenn dul def di wax lu kenn dul def i faut nga am fitu

pour ubbi xelu sénégalais parce que sénégalais yi ñoo mor yor Sénégal mais su fekkee dañ leen di bàyyi ñu leen di nëxal tout le temps ñeneen ñoo leen di manipuler ñuy comporté wu pour ñeneen dañu bugg def ak Sénégal ba sénégalais yi gàddu seen réew mën ko yóbbu fu baax loolu mooy xeexal Sénégal waaw xam nga àddina bi nii lay doxee pétrole am ko ci réew chance la wante yi tamit musiba la sa taxawaay su fekkee demewul ni mu war a da ngay am problème pourquoi parce que ñi nekk ci biti am doole ñi nekk ci biti am am pexe dañuy ñëw gasaxal sa réew nu nun koy gasaxal yi dañuy wut ci biir réew mi ñu ñu àndal ñooñu di créer perturbation pour que réew mi jaxasoo ñoom ñu mën a sa alal pourquoi parce que yow sédduloo leen keneen ngës àndal ñoom ñu ni kii nga àndal da nga koy bàyyi ànd ak ñoom ci ñaari anam ou bien ci jàmm keneen jël pouvoir bi ou bien ci ay ñu jaxase sa réew ba mu explosé gis ngeen fa ay ay ay Irak yeneen réew yu fi nekk yëpp ay ay ay Libye yëpp lan moo leen dal dañu jaxase seen réew ba mën a jot ci seen pétrole di ko pomper di dem pomper di dem je l'ai dit quelque part dafa am benn bu ko bind mais noonu moytu ñun sunu pétrole bi suñu moytuwul suñu pétrole bi ak tubaab yi mu neex yu ñoom dinañ ci am mu naqadi ñu ñoom dinañ ci am kon boog nañu ànd ak xel mu doy ba mën a ànd ak ñi bëgg pour que suñu pétrole bi génn fii ñu am ci dara mais dafa am ñi nga xam taxawuñu foofu te loolu mu ngi ci réew yi ay réew yi nga xam ne noonu la ñuy doxee banditisme d'état mu ngi ci ay puissance économique yi nga xam ne ay nit yu am alal yor ay société yu bari noonu la ñuy doxee mu ngi ci rek ay bandi organisé yi nga xam ni jaxase réew pour dara am fa ñu am fa dara parce que pétrole am na fi noonu la ñuy doxee mu ngi ci terrorisme bi nekk fii terrorisme dafa lëkkaloo ak ñu mel noonu noonu la ñuy doxee donc loolu moo wër pétrole loolu moo wër phénomène pétrole donc il faut ñu waajalaat suñu bopp loolu vraiment xeexal Sénégal daf ci am rôle important pour yee askan wi yee nit ñi ànd ak opposition bi ci ni leen delloo leen seen xel comme ni ko Ndeye Sow waxee tout à l'heure ngeen def opposition ni ngeen ko war a defee ñii nguuru ñu nguuru normalement réew mi tëdd fi nga xam ne fa la mën a tëdd ba pétrole bi duñu jaaxal ñun da ngay am jàmm mu nekk ay sa kaw déedéet ñun duñ ko nangu pétrole bi duñu jaaxal